xarit la. Uh-huh. xam nga la mu doon. Mm. ànd si dëgg. Mm-hmm. dox si dëgg. li gën a soof si àdduna xam nga la mu doon. Mm-hmm. xulil. Mm-hmm. munaafiqun ak ñàkk nangu dëgg. Sénégal dafa toll foo xam ni faw ñuy waxante dëgg nangu dëgg bi. dëgg bi moo di président Macky Sall ak ñi mu àndal doxaluñu yoon ci réew mi dañu ko diggoon ñu yaakaar leen ci ñu tas suñu yaakaar loolu moo dee dëgg waaw léegi nag la ñu mel ne kasi ànd malheureusement hélas. sénégalais yépp bëgg Youssou Ndour la ma leer la maa wax yàlla na jàmm rek am yàlla bu ko dara dal yàlla na yàlla yokk ko kàttanal ko barkeel ko dolli sutura waaye tey jii nii maar de um si bu ko fi dara lu ko naqari daloon sénégalais yépp ñooy wëlbatikuwaat soutenir ko ñun ñëpp noonu la ñu mm-hmm. i dem pour président Macky Sall idem pour keneen ak keneen démb xaw ma barki démb ñaan naa fi benn ñaan ah, pour président Macky Sall ak njabootam am na kenn ku ma interpellé ci mbedd mi ne ma sëñ mm-hmm. sa ñaan yi ngay ñaan yi nag da koo war a baax parce que ñaan gi dafa mel ni yow heure boo ko ñaanee waa ji day gën a toog ñu gën a am jafe-jafe ma ne ko subhanallah <laughs> bàyyi li nga wax waa ji ci dëggam la de mu ne ma mhm. ma ne ko nag lenn am na ñun duñu ay duñu ay ñun ñun njabootu Charlemagne nous ne des barbares nous ne manquons pas de civilité et de ay nit lañu duñu ay bàyyima lu nu mere mere nit am na fu noo yem bu weesoo nag dañ wax nit bi ne ko newu ci dëgg président Macky Sall ak ku ànd ak moom ak ña mu àndal een dëpp ku ànd si li xew ci Sénégal de 2012 à 2023 nekkoo aussi dëgg te loolu moo di dëgg malheureusement ça tombe sur des ki qui nous sont très proches les uns les les autres man ma rakkab baay ma rakkab baay waxuma sax waxi ñeneen ak keneen ma rakkab baay il est de l'APR ma rakkab baay il est très proche à Ismaïla Madior Fall tonton wala papa Léon maa ngi laa nuyu hmm? nga fële ca kër maanaam réew mi moo tëddee noo xam ni euh. eh, voilà c'est nous dans nous waaye une chose est certaine jamono bii c'est l'ère Ousmane Sonko après mu nekk président mu bañ a nekk président c'est-à-dire Ousmane Sonko est devenu le patriarche mm-hmm. qui d'un claquement de doigts que ça plaise ou pas n'en déplaise peut décider de l'avenir de ce pays-là pourvu qu'il fasse le bon choix maanaam bu ñu ko fale bu ñu ko bo bàyyee mu bokk ba euh, euh, il passe il peut passer au premier tour bu fekkee ni inscription liste électorale jaar na yoon bu fekkee ni kay organiser jaaral na ko yoon wa illah bu demee deuxième tour ba ce sera si pompeux si pompeusement fort encore par conséquent et au au-delà eh, su eh, fekkee eh, bokkut su fekkee bokkut itam ba bu ah, dee gars bu nee gars yi diw la gars yi ne waa ji joxe na ndigal et c'est là où se où se trouve le danger pourquoi le danger parce que tout comme Ousmane aussi peut dire man sama ligne de conduite ak li ma gëm ci li nga xam ne moo di patrie mayuma may wax nit ne ko tànnal diw mhm. isoloir bi c'est privé amaana tam mu jugé noonu je dis ma ñàkk maano moo wax rek hypothèse mhm. waaye ba mu si munti doon Ousmane reste le maître du jeu te loolu yéen yéen a ko def APR benn bokk yaakaar yéen a tabax lu ñu mel yéen a ko organisé mu jur lan safaan réew boo xam ni 2012 bu ñu génnee ci considération yëpp génn ci jàpp Ousmane et cetera et cetera génn ci politique bi lépp Nabou Cor Mamy Samba ak kilifa yi ñu seetaan. Mm, nañ dem ci gestion dëkk bi. ñu ba ñu bàyyi wax waxi. waxi ah. parteek machin ñu wax ah. rek gestion dëkk bi. kese ci yoon bi laa dajale laaj leen ma lu ma dajal. lan leen ko nettalee ngeen reetaan ba tëdd ci suuf. bus rapide transit bi gaa yaa ngi ko escorté mu la jàll. macha allah. c'est un bus articulé loolu jamono Sotrac ak yi amoon na du événement. après nag on me dira tali bi muy daw fi ñu ko tracé day daw daw boo xam ni dara du ko fàtt aller retour bi day gaaw diggante Guédiawaye ak centre ville. mais day barsé ko <laughs> ah non xam nga man dama ne technicien la day day barasiku mooy la day barasiku day jékki ne tëj yàddu. da day barasiku ndax dafa rek tàngalul. ah bon maa ko wax fii na. subhanallah no dérapé daal ni nga ko ni nga ko tëggee moo baaxul bépp épée ko cimenté. Hmm. du godron cimenté la. waaw waaw ba pare amul règlement intérieur bi maanaam mu nekk juste normal dafa dafa xaw pant tuuti. maa ko wax ni ba mu taw tawee du daw de. Hmm? bu tawee du daw. loolu moom nar naa doy waat. ah mais say man mécanicien la et puis xam naa dara la waaw wallaay. bu ta waaw parce que démb moom BRT bi lóor na démb. ah <laughs> man ak mami la lu ñu dajul amul. waa loolu na de ah, eh, bi bi ñu ko essayé fii. nu def pour si amul bi eh, bi ko essayé saaraanoom. Mhm. parce que non dafa réglementé wul. et puis kenn et bu ñu ko defoon carreau sax moo gën ñu ñu cimenté ko du goudron ciment la. ciment la man kay ciment laa gis. day bar su de maa la lu leer la loxo. xam nga ko mu ko jox xam nga moom daal dañ ko daa yomb ndax nag. yomb ndax de. oustaz rek. Ah, waaye nag Sénégal gis duñu ay bett bale teer xam nga sàmba teer xam nga dañu xiif ba yu bëgg a dee dañu toll leneen. c'est-à-dire ci côté gestion rek. li muy wax nii mu ngi reetaalu mais ak. dëgg la côté gestion rek rek maanaam tey bu ñu ne woon Sénégal ok au-delà des libertés. Mhm. parce que liberté yi mooy li daaneel président Macky Sall mooy maanaam xañ ñu lépp xam nga boo demee ba tey sa njaboot naan eh, sa waay bu ñëwee tey ñu dee de ba président bi ñibbisi président bi bu ñibbisee dara jàmm rek ak salaam. kese parce que parce que sénégalais yi nous sommes libres. Mmh. et y a un discours qu'on doit refuser. Mm-hmm. seetlu leen ba sénégalais yi di wax naan ah Macky de day tëjee au départ le président Sall tëjewul. Mm-hmm. Uh-huh. gars yi bu ñu waxante dëgg. Uh-huh. départ bi président Sall de on sur crack des billets mal acquis. Mm-hmm. ku war a jàpp vingt cinq t kenn bàyyi vingt quatre kay tëjoo. Uh-huh. dafa ni dafa am tànneefu tëj. Uh-huh. ñu ñoo tànn ciblé leen jàpp leen. mu jur injustice. loolu fippalu nit ñi wante au début dès que les gens ont commencé à dire si booy xamal li ngay wax de Macky day tëj de. bu bu ñu dafa am loo xam bu ñu koy dégg dañ ciy doxe psychologiquement dañ ciy doxe loolu il faut que Sénégal ñu bàyyi mm-hmm. parce que président Macky ah. Sall yàlla sàkk ko pour muy faat Sénégal yi wala pour mu leen dee def lu bon je et c'est en le disant ou en dans un sens que on peut lui wala moom ñi ko jege ñu pousser leen si mm-hmm. parce que benn moment mbirab nappante la jaay prégal ak bandi bandi lu ah. te warul demee noonu <laughs> Sénégal ñun ñoo fi dëkk nga am papa am yaay maam papa am yaay ma war a ñëw ne la non non non maa la gën wala man maa man maa la ëppale. wala man maay doxal yow doo doxal. te amul fenn te yow pour nga doxal da ngaa ñëw ci oustaz Diaga ñëw ci koor ñëw ci euh, Samba. Baye Assane ka ca des te bi ngay ñëw ci ñoom da ngaa gentil. Mm-hmm. da woon de bi nga bëggee falu da nga du tendre respectueux. Mm-hmm. respectable nekk ku ndox si honneur. waaye léegi nga toog téye nag nañ nag léegi nag kaay nag ma wan leen nan la moo tax sénégalais yi léegi nag di wut ay pexe ginnaaw tëj nga fépp ñoom it mu tëj fépp nga barricade fii nu barricade fii yàlla yàlla wax li nga wax waaw yàlla dafa ne da ngay da ngay campagne da ngay dem ci nit dig leen dig leen dig leen leen bañ am coon confiance mhm. yàlla na ko ne li ma taquluuna ma la tafaaluuna mhm. mu ne bi ngay campagne dafa am loo ay waxoon mhm. naan dinaan dafa nang mu yàlla ne waa lu tax respecté wax ja yàlla commencé daal riposté ne kaburat maxta sanction dinaa ko def bi maanaam cànjum yàlla meru yàlla mun a ko dinaa ko def sa kaw kon to as ak ku man doon ah mag ñi dañ nax naan nit ki daal nit ki daal kaddu nit daal kàddoom kàddoom mooy li ko wax mën a def lépp nag mais na nga def maximum nit ñëw li ñu soxla mooy seen dem ak dikk ak lan seen dund wàññeeku bu ñu feebaree faju seen doom yi am jàmm comme yaa ko dicté woon defoo ko mën na heure sanction bi du leen mooy dañ lay folli mu jeex tàkk ma ma tudd wax. waaw nañu na def si que tubaab yi moom mën nga yow indi sa programme ñu ne waaw. dafa ko ñu fal sànni fële ci àll ba nga dem. mu jeex tàkk. alxuraan daal nee na pourquoi as gor su nekk sa kàddu nga am. respecté ko la nga waxoon def ko boo ko deful yàlla ne ma ñëw sa kaw. te nag songum yàlla ak nit du benn. déedéet déedéet waaw et puis nag jafe-jafe yi mu am yëpp loolu rek la ñàkk respecté li mu waxoon. na am na. président bi tàggu na waa Nations Unies. waaw wallaay discours bu émouvant sax. tàggoon leen ah. tàggu kat fu mu tàggu. waa Nations Unies ak Touba xaw ma nag. waaw waaw <laughs> li muy tàggu doo bëri na. <laughs> ah day dem nag. non non day kii Baye Diagne non dem hmm. moom Baye Diagne ki gën a sonn ci àdduna bi jamono bi jàpp naa ne président Macky Sall la. waaw jamono bii. léeg-léeg léeg-léeg ma toog xool écran ba mu yàgg xool ko ma si. wallaay président bi mu ngi yenu lu diis. am na keneen nag koo xam danaan ma danaan ma yow yow de yow de xamoo li xew yow président Macky dafa keer loolu yow. yow yow yow yëgoo li xew ma ne ko sëñ bi nit nit la. na ko. am na fooy toll. Hmm. nit rek yàlla moo ba pare yàlla. yàlla moo la naan cuuj. magu boppam la de. xam nga cuuj. Mhm. pikk. Mhm. mu neex la mu naqar la nga bëgg nga bañ. nga yëg. ndax moom la de cey borom mbaar mi. parce que sa waay daa loo xam ni kenn du ko gàddu u daw ak moom u dem u bañ a taxaw mbëkk rek. 12 ans ci ren doy na sëkk ak barke. lu benn at de. ni la ceinture nga mën ko takk ci sa ndigg mu fàttal la. ah noonu nga mënee tekk ka nag daal ne doy na. loolu moo la àdduna. moom laa def léegi ni kenn ma rey. <laughs> comme mu ni mu mën a dalee mami wala koor wala keneen. wallaay loolu moo di àdduna. wallaay donc aujourd'hui nañu rafetal président Macky Sall aw àngee dem baal prisonniers yi. Mhm. les prisonniers yi. man jàpp bi laa xamul lan la. jàmm rek la jàmm rek. Bassirou Diomaye koo xam ni post Facebook la bind ngeen ñëw jël lépp luy délinquance entre guillemets maanaam lépp luy mbiru bandi ngeen tegal kaka ci ay charge ne moom loolu nekk loolu rek la. post Facebook. man damaa dafa dafa xëpp nit asib. man loolu laa def mukk si ànduma. dafa benn crime. sa <laughs> sa oh, nga dóor ko nga dóor ko lool jomaay ah. euh, mu ne violence dafa kolewul sax ak le profil. de àndut ak moom nga door ko ko. xëy na plan B ba la ñu doon bañ. qui sait on sait jamais dans la vie dama xalaat nii rek njot. Mhm. Fadilou Keita doomi Nafi Ngom Keita bi sanu yaay bi ma nga ma nga Amérique def naa mu jumul nu nga ma masawu bu baax. nekkoon fi of nag di liggéey liggéey. bu normal kooku lu wax. liggéey liggéey bu normal Fadilou dafa laajte kay li concerne gendarme yële. kenn ci Didier Badji ne frère am la laajte la def Facebook. léegi xam nga toog jàpp ko. bu bu ci dugg. non plateau yi non xam nga moom plateau non plateau moom plateau. c'est-à-dire non nga baal ma. plateau dafa dafa dafa rafet quoi. bu yóbbu plateau dafa dafa jàpp Fadilou waaw macha allah doomi nafi nga mu kayita boobu te pourtant ca jokkoo ak ndaw ñi. Mhm. président Macky bi mu koy def au palais su ma juumul jokkoo ak ndaw ñi wala je sais plus jokkoo ak ndaw ñi. jokkoo ak ndaw ñi defe naa Fadilou mu nga fa woon. ma nga fa woon. waaw comme comme parce que il est dans le secteur de l'élevage aussi. Mhm. quelqu'un qui produit qui est productif qui apporte à sa nation nan nga mën a jiite réew ba pare di constater di accepter ñu kaa jàpp post Facebook laajte question jarul jàpp. après nag quelqu'un nous dit tout le temps léeg-léeg boo dee wax ak euh, ay kilifa yoo xam ne dañu jege sécurité publique xam lu laa wax non mais Passane y a des choses que vous ne maîtrisez pas. maanaam. bu la koy wax. ah yow yow ah, yow finalement da naan non non kon man maa comprendre <laughs> mais dans le fond y rien à comprendre. c'est juste un combat politique ce sont des acteurs politiques à un moment donné ñooy ñëw fàtt dëkk bi. il y a eu 62 ans d'indépendance ou trois au Sénégal Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye président Macky Sall ka nekk amoon nga say taar say qualités ak say défauts celui qui a ouvert les vannes de la démocratie au Sénégal au-delà de tout bu ma wax lee dëgg rek te yàlla tax il s'appelle le président Abdou moo ubbi démocratie Sénégal mm-hmm. Senghor da ko tëjoon ràpp ràpp président Ablaye Wade bi bokkoon ak moom bokkoon ak Senghor parti ba mu bëggee fii bu Senghor xaw a ubbi porox ndollu euh, genre euh, voilà bof rafetal ko le président Diouf est venu il deux choses yoo xam ni bu nu gëstoo bu baax dellu gannaaw rétropédalé on se rend compte que le président Diouf nous a plus servi qu'autre chose il a subi les affres de l'ajustement structurel par la faute d'une mauvaise gestion au temps de Senghor entre autres parce que sur le plan économique Senghor n'a pas construit malheureusement par contre dans l'optique de la méthode et de l'organisation Senghor teg na ay base base u état le mythe de l'état mais bon après ci soubassement wu copie française le président Diouf a réussi deux choses moo di ne rétablir Cheikh Anta Diop pour man jàpp naa ni kooku moo doon koo xam ne mënu nañu dimbali ci lu bari C'est grâce au président Abdou Diouf qu'il est redevenu ou devenu ou accepté comme professeur de 1981 à 1986 ñeenti at la def ou cinq daal di ñàkk bakkanam après quoi libérer l'espace démocratique sénégalais ba mu jur ay rajo jur ay tele et cetera. c'est le mhm. président Diouf. ñu ñëw ba fii tey moo tax ñenn ñi naan président abu juuf nag na wax ak président Macky Sall. Mhm. parce que comme président Macky Sall jox na ko cër. ba tuddee këpp bërëb kon président Macky Sall wala président Abdou Diouf war na mën wax ak président Macky Sall ne ko nag nangam ak nangam ak nangam. amaana mu ngi kaa def leeruñu amaana wante koor ak Samb ak Baye Diaga ak ni ñoo setaan nit ñi nag dafa am fu mu wutee ka si nekk ak sa bopp sa yëg-yëg sa jikko sa gëm-gëm. Mm-hmm. ñenn ñi jege xam wala ñi xamoon. dañ la naan ah diw nangam moo tax mu mun a demee nii moo tax wala moo tax demeewul nii waaye tey yàlla nag lu ni mel bu amee boo doxee si dëgg yàlla oyofal lépp boo doxee si safaan yàlla diisal la nga am benn xale ba tuuti ba juddu 1974 juddoo fële ca Thiès. Mhm. ay maamam sosoo Casamance ak xombal mhm. xulil mu la dox. mu la dox mu la dox mu la dox ba doon sab agent. Mhm. dégg naa la wax bàyyi jaaga billet yooyu ngay yëngal di xaalis yal na yokk. billet yi ngay yëngal di ko def si sa poche yàlla na yokk déedéet sutura sutura baal noonu. booy blanc booy blanc ba waaw waaw baal sutura yàlla na yokk. yàlla na yokk te jig la ak sa njaboot. amiin dégg naa wax ngay dox ci àdduna 1988 lu amoon du année blanche. Mhm. année blanche boobu nga xam ni Pape Alé Niang il était le benjamin des